asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz Xaali Gaye bismillah alphabet yi xamul dara day juum rek xaw ma day juum xaw ma njàng mi moo demut noonu asalaamualeykum wa rahmatullah waaw maa ngi jëmale sama tontu lii ci waaji ji di wutal yàlla béréb bu ko ëmb mu féete ca koy waxe nag noo xamante ni bii lu raglu la puisque bu fekkee danaan man nangam laa waxoon gannaaw gi ma gis ni albani da ko taddaif ma bëgg ba la ñuy jàll ci baat taddaif sax taddaif moom du arab waxuma njuumte de waxuma juum comme nga bëggoon wax nahru wax naxru loolu dañ naan da ngaa juum mais mën naa am bu ñu demoon naxru ak nahru benn bu ne am na ci arab mais taddaif moom dafa amul ci lugal arabiya bil marra daafa bid daali wal ayni wal faa na nga ko indi te taddaif foofu rek la mën a jóge te far dafa daa fa amul ba taddaif du am su ko defee toll ci mustawaa yu suufe yooyu nekk nekk jaahil murakkab ba pare bëgg a firi ay ahadis waxuma laaj di wax ci ci ci ci ci yàlla nga koy jéem wutal barab bu mu nekk yàlla place mënut a mënut a ëmb yàlla puisque place bu ëmbee yàlla rek place moom day am fu féete penku am fu féete sow am lu féete kaw ak lu féete suuf ak ndeyjoor ak càmmooñ te loolu nak mom la sa borom nangul sa borom yàlla place munu ko pek kana qabla al qablal wa lam yataghayyar amma kana léegi ana mo umpule ci fan la yàlla nek rek kon puisque yàlla bu fekente ni dafa wax ci suratul araf fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaibin wa ma kunna ghaibin mooy lan waa ñoo nga fa woon nga naaw yàlla wax na ko yow nga ne nekku fa da nga seet nga li ngay wax may wax nga naan ay ay imam tabari tabari moom bu ñuy jël wax dëgg yàlla ci ci ci ci kibaarul muhaddisiin damaa yaakaar ne tabaraan yi daal nga bëggoon a wax mais bu dee tabari moom seetaat ko bu baax tabari dëgg la indi na ci tafsiram bi ay ay ahadis waaye nag nañ jàpp ne tabari daal muhaddis wala mu arrix moom la gën a siiwee ci muhaddis mufassir ولا مؤرخ بوكو تدي وانا بلغو تدي محدث بولي طبراني تمت موم بيننا آه، نياتي معجم وانا موم ليكو غنو ايتيل دغ دغ نيكول ون صح توبتو حديث بي تعرف ولا صحيح واي موم دا دون داف بن معجم رك بو جلي حرف حمزه دال بيب حديث بو تاملي الف دكو سي جيما اندي بلم خم جيخ مو داف نونو با با تخنا لاي لاي ني فك آه، اي تيريم اي آه، حديث يو خمني daif la puisque sartontiwul woon ñoom lu ni lu mu sa xeex lay doon ma bëgg nga delluwaat ci li nga jàngoon bala ngay gën a réer di réeral nit waa kay te ma dolli ba tey waa jii xaw ma alfa la xaw alif ba léegi moom jàppul ci yàlla dara de amul pas-pas ci yàlla puisque nee na loolu la ñuy jàpp ba xam kon mi ngi jàpp ni li mu jàpp day dañ puisque nee na dafa am lu mu gëmoon بسك إمام الباني موقع تدعيف من بلغ تدعيف قوم لمي تك تدعيف خارا لغم جوانين يوبالك تدعيف لا وقت مملوك إمام مالك مملوك الباني دف لغنا جنا جيسنا خوم ذهبي اكتبري اكوم كان ترميزي mu eh, ah, bu liggé bu gissaté len xam nga kon du japp ci dara fi nek ni comme que dafa jappone ci ci ci ci ci ciatu genu kagne te moy waxe albani tay legui bàyyi na ko jàpp na ci ñet ñoo xamanteni bi ki lim ci wax ak lek dal ci kay wax bokku te momit jëlul jëlul gul ba legui ben aqida ci yàlla lu dul ni lol lay jàpp ba ci kanam ba xam dana gis len wala deb nga xam ni li ñuy wax réer te mom waron na jàng alquran awalam awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kaanataa ratqan kaanataa ratqan fa fataqnahuma legui amna ci borom xam-xam yi ñuy wax ni kaw ak suuf bis bi yàlla Takale eh, sama wati wal ard bi len takale la kaw ak suuf di dogam bañ àndee doon bennub dànk booba kaw ak suuf amul te ba léegi kaw ak suuf ci ñun manam kenn ku ak ni nga taxawal rek ñun ñi nga xam suñuy tege ci kaw suuf suñ bop jëm kaw asaman ñun ñun la asaman di kaw ci ñun mais si ndax bi nga xam dafa nek ci saqf bi ñenti tankam japp ci saqf bi bop bi jublu suuf ci bopam jëm moy kawam fa tanki jëm moy suufam légui amna ño xamni li lañuy wax te neexu la dindi parce que dañuy dañuy dañuy andi luñ mëna tek talo pour pour pour saxal ni yàlla mi ngi fépp yàlla bu neeku fépp kon kon dañuy wutal dañuy wutal yàlla fuko fuko fuko fuko ihata dal comme niko wahabi yu ni defé comme niko ko ibnu taymi di al mujassima al wahabiyatul mujassima liñ def ci liñ wax ci yàlla moom ngeen bëgguñ wax ko te moy wutal yàlla ben place bo xamni ma nga tok ci ben aras bi maanaam ab ab saise boo xam ne moo ngi ca toog mu ngi kiij kiiji comme der bu bees bu ñuy doog a defar ak teg ni muy kiij kiijee nee nañ noonu la chaise di kiij kiijee mu bàyyi fa place boo xam ni pour bu Muhammad ñëwee toog fa lii la wahabi yu ni gëm di ko wax léegi nag bu ñu jàppee ne yàlla loolu la mel daal di tasawur ku am toog am toogukaay am ay tànk yu am ay lupp am ndigg am digg ginnaaw am biir ami loxo ñoom bu fekkee loolu lañ jàpp ci yàlla ñoom seen yàlla lu mu doon léegi lu mel nii ku muy sa yàlla lu la neex sañ nga ko def lu la neex sañ nga ko puisque kii puisque kooku yaag moom a yem lu mel noonu yaag moom ay yem su ko defee boo gisee ñoom yëpp gi yëpp yàlla yëpp yonent yi jàppin wi ko jàpp bu baaxul rek moo ko waral te nag moom ba léegi jàppul ci dara ah. puisque albani lay wax ay moo fi tadd tadaifoon lële tey muy tudd ak tabar yi di ko tudd ci ci muhaddisuun yi dégg nga maam wax zahabi te waxati waxati fële xaw ma kan tirmidi moom daal waroon na fee wax lu leer wala mu noppi puisque ahadis yi maanaam lépp luy saxal sifaatullahi subhanahu wa taala du mën a nekk loo xam ni maskukun fiihi la moom lu muttafaqun alayhi lay mën a doon muxtalaf fiihi mu leen si ci saxal aqida wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw ci audio bi maa ngi naan ci hadith bi nga xamni borom subhanahu wa taala dafa nekkon fo xamanteni amala ma ngi ne ci kawam ngelaw la ci suuf ngelaw la fofu dama juum daf ma daf ma rëcc ci wax ci ci kawam amul ngelaw ci suuf amul ngelaw loolu laa bëggoon wax waaye xëy na ma juum wax loolu abu jaawar moo ma ci bàyyi loo xel léegi jazaahullah xeer waaw sa waay dana baax nag comme que da ngaa juum wax ci yàlla loo xam ni waxuul ataquluna ala allahi ma la yow da nga koo desee jekku dese ngaa jekku masala te lii ngay def ni ab làmbut la taxabut la bu teyee nga ni dama koo tadcifoon ndax albani bu teyee nga ni dama wax ci lu sa borom subhanahu wa taala te nga te ngaa boole noppeeg dem jàngi te tamit lii na nga ko yóbbu ca fa nga ko waxee woon ba ñu bari dégg ko fa ñëpp dar seen giwiñ boo demee ba yëg ni da juum foofa ngay ngay dugalaat audio bi waxal leen ni da juum te man li lay nasihaat te sama mbokkum jullit nga dama lay nasiha rek laay la biir rek nga bañ a dugg ci mbir yàlla di ci waxee comme nii aqida du saxe ci nii ay ahadis daifaak ahadis muxtalaf fiihi yooyu kenn du ci saxale aqida il faut ñu dem jàngi aqida te bañ a yem ci benn madrasa al madrasatul wahabiya fi mu ñu jëmale bokkut ak benn jëmukaay bu baax te nag dañ lay tudd tur yàlla tudd la tur yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga defee ni ñoo ci nekk fekk na demewul noonu il faut nga jàngi tawxiid jàng ko ci ay nit ñu maandu ñu wóor te teey ci ndax loo xam ne kenn forcé wu la pour nga wax ko kenn forcé wu la pour nga wax ko te it mënoo ko expliquer yàlla nekkul fépp mënoo ko mënoo fexe ba indi ko mënoo koo saxal te doo dem ca yàlla mukk ëllëg yowmal qiyaamati ñu lay laaj fan la yàlla nekkoon laaj yi ñu lay laaj sa bàmmeel fan la yàlla nekkoon du ci bokk ba tax na booy bon nga def ci attention yaa ngi yaa ngi dugg ci nag lu dangereux yaa ngi dugg ci lu simple ci làmmiñ ni mais nag lu rëy la fa yàlla bëggoon naa nga téye ci sa làmmiñ te dem jàngi ko te boo ko jàngee ba noppi tamit nga jàngaat ko te bañ koo jàngee ci benn madrasa laa tadxulu min baabin waaxidin wa duxulu min abwaabin mutafarriqa am na ay déggin yu ci am nga bàyyi ci xel waaw mbokk yi kii di jubbanti alfa ci ma taxtahu hawa ak wa ma fawqahu hawa moom mbàyyee jàng na naxu bu baax te jàng balaaxa maa gi moom pour moom maaw lan la est-ce que maa naafiya la wala wala ismu mawsul la bu fekkee xam na détail yooyu na seeraat li muy wax bu fekkee xamul détail yooyu xamewul maaw maa naafiya xamu ko xamul maa maa maa xam ne ismu mawsul la xamu ko bu mu dugg ci ci ci jàngal boppam am na loo xam nit ki mënu ko jàngal boppam te lii da caa bokk ay li mu ko déggee ak ko déggee na aqida du saxe noonu yoon wi ñuy saxale aqida ay werantee ki bu ma xanteeg nii laa ko déggee ne ko déggee damaa juum ak albani ko tadif zahabi moo ko taxsin yooyu yooyu du seen domaine loolu du seen domaine wala fi nee na xobu xël ëpp na gi ñu béy mawdu bi ñii ma dégg ñu koy tanaawul jékkuwuñu ko jékkuwuñ ko fenn te it fañ bawoo duñ leen yëgal ni leen yëkkuwu leen xam-xam dañ leen di yebal pour ñu ñëw di ko wax dañuy tardeel seen bopp rek ak yàqal ñeneen ñi te nag lu yàlla du régler ëllëg amut te bu régler lii ëllëg naan lu tax ngeen jëloon ma di ma waxee lii di ma waxee leen di tegu leen ko fenn da ngeen xam ni seen yoon nekku ci te it lii kenn waxloowu leen ko te yéen ñu ko réere yéen ñu ko réere di gënul waaye ku ko réere woon ba dee tamit yaakaar naa ni dem ci yàlla mun la man yàlla fan laa nekkoon eh, nga ñàkk koo xam ba tax ñu mbugal la ci loolu du am yiñ lay laaj da cee am yoo xamante ni bii def maanaam yi la sa yi la defloo da cee am yoo xam ne ma déedéet li yàlla deflu daf koo leeral li yàlla deflu bëgg gëm ko daf koo leeral li bëgg ñu ñu ñu weddi ko daf koo leeral yi ci des nga xam ne nag xam-xam bu xóot bu ñàkk a xóot la am ñu ko attanu ñu ko attanut loolu da koy bàyyi ña ko xam xanaa gisoo yàlla wa tilkal amsaalu nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa al aalimuun aywa ay amsaal yoo xam ne yàllaa koy joxe waaye nee na ñenn rekk ñoo koy xam ñu ko xamul taxul mu yedd leen waaye ñene dañoo am daraja rek yéen ci ñu ko xamul ngeen bokk ndaxte kat ay la yéwén da ngeen a jàngut ay la yéwén bi ngeen di dugg ci ci mbooloo mi ngeen dugg da ngeen a âgé te mbooloo mi ku dugg ñu kaala la nga nekk sëriñ ma bëggoon rek ñu bañ cee boole yàlla dañ leen ci bañ a boole yàlla ñeneen ñi ñuy tooñ ni ki awliyaullahi as-suufiyiin ak sax ñeneen ñu leen féete kaw to tooñ goog yi ëpp na daroon ëppoon naa def waaye nag nes ko ci yamale bokk nañ yem ci nit ak nit waaye bëgg jàll ba ci rabbul izzati wal jabarut di ko di ko def nii am njaay indi jóob bu alfa waxee fee wax lu ko neex keneen jël fee wax lu ko neex ci àq yàlla ci ñoo xamante ni bii wax dëgg yàlla li li li ñuy wax fer ij ak ñàkk fer ij yi daanaka mën nañ koo askan ci ñoom bu ma soñoon daal te dama leen di laay biir rek ñu ngi leen di lay biir bu ma sañoon daal ñu delluwaat jàngi masala mi bu baax bañ koo jàngi benn bët wala bañ koo jàngi ci benn téere wala sax bañ koo jàngi ci benn madrasa seet madaris yu bari waaye bu ñemee ci ya kese dañuy sërxal dañuy nax te bu fekkee lii moom la nati mooy natijatul ya fil aqida xam ngeen ni kon bis buñ demee ba génnee ci ñu bari tuuxi doona dana am tuuxi dana am trop ab mawdu da danga koy jekku wax ca boo ko jekkul nga dem bokk ci nga koy jàng sukk bank say tànk waaye lii wóorul de lii ñu def wóorul de man nag maa ngi leen di maa ngi dégager sama responsabilité ci xamal leen ni lii du noonu fañ ko jëlee nañ ko fa delloo nañ dem jàngi nañ dem jàngi te bàyyi wax ji wax ji dafa teel am njàngay jiitu lu cee topp doog caa topp waaye wax ji dafa bari te dafa teel te ñuy wax xamuñu dara te fi ñuy waxee dafa dangereux trop buñ ci man mii fu ma nekk ak lan la mën a lan la tële waaw kay man nit simple la tekkiwu ma dara ba dara boo la jeex waaye ki ñuy wax ku mu doon rabbul izzati wal jabarut nañ bàyyi li ñuy wax nañ jàngi te bàyyi